chers internet yu enquête 221 dal leen jàmm daata jàmm ci li gën a fës ci ëtt yëglekaay yi ñu tàmbale koog le témoin yéenekaay bi del soit ci jafe-jafe gi nga xamante ne moom la askanu Sénégal gi nekkee yéenekaay bi ñu xamal ne président Macky Sall nag mu ci indi ay solution teg ci table bi lu tolloo fukki ponk ak juróom lépp ngir génnee askan bii ci jafe-jafe dund gi ñu nekkee ba lu liaas gi nga xamante ni fi mu toll nii itam dafa cher lool moom président Macky Sall teg ne nii lépp ngir càmbar ñan ñoo yokk luyaas dañu nekk ci terrain bi lépp ngir vérifier borom boutique yeeg marché yi surtout ñi nga xamante ni ñoom ñooy yokk dund gi yéenekaay bi en tout taxaw seetlu gi lenn la de ba ñuy fal Amadou Ba dañoo waxoon dañuy accélérer la cadence génnee sénégalais yi ci jafe-jafe gi ñu nekkee amoon ji na gouvernement bi dafa mel ne ci tànk yooyu ndax nit démb la président Macky génn ne gis nga dund gi sénégalais di dund tam metti na lool Le Soleil di ko dëggal ne metti ministre yëpp concentré ci ngir mën a génnee yi ci dund gu cher gi nga xamante ne la ñu nekkee ci loolu moom président tànn lu toll 1000 jeunes wàcc ci terrain bii ngir ñuy contrôler prix yi nga xam ne moom la ñuy produit yi yëmal ci loolu de moom président Macky Sall teg benn numéro vert ngir képp koo xamante ne ni seetlu nga benn boutique wala bokk ci biir marché bi am na lu ñu fa yokku da ngay woote ci numéro vert bi gratuitement association des consommateurs ne leen nag chaque 15 mars léegi seen journée lay doon ngir ñu càmbar doxalinu koom-koomu Sénégal gi moom président Macky Sall fi mu toll nii semaine dong nag la joxe gouvernement bi ngir ponk yi mu teg ci table bi ñu daal koy appliqué ci na mu gën a gaawee Les Échos yéenekaay ubbi xët bu yaatu ci batalo Joola bi nga xamante ni suuxoon na ci biir géej gi yéenekaay bi def ci révélation bu rëy ci benn waay boo xamante ci yoo xamante ni nii ne kenn dootu ko gis waaye waa ji mu ngi xam ne ci biir yéenekaay bi ne ku weddi batalo joolaa ci biir géej gi àndal ak man maa lay yóbbu nga gis fan la tëdd ci biir géej gi Le Quotidien yéenekaay ne ki nar dugg kay ci géejub mer ba faf nag daat fay lab du kenn ku dul Mimi mi nga xamante ni fi mu nii mu ngi defante président Macky Sall comme ni ko sentiree yéenekaay bi ñu xamal ne gis nga ci Assemblée nationale gannaaw kàddu Mimi yi waa Benno Bokk ko l'info yéene kay ne ñi manko koy wax ci gouvernement bu bees bi coowal troisième mandat bi affaire Barthélémy Dias ba ci situation bi nekk ci biir dëkk bi duñ ñenn ñu dul waaye weeskat bi Ousmane Sonko kii ànd ndorom gis nga démb Macky lu mu wanaasuwul laa la wax ca conférence de presse yeewu askan bi yekk ko lu mel ni xemet a koy xamal ni bu dee ne ab gouvernement de combat nga teg suñ kanam jàppal ne da nga xeex ba sonn ndaxte ñun duñu daw yoota njiitu Pastef di xam la ci biir yéene bi ne combat bu Macky Sall xam nga fan la waroon nekk ci général Moussa Fall commissaire ci ñenn ci justice bi ni fi mu toll nii dox lu kon ñooñu la Macky Sall fi mu toll nii di dooleel ngir rek di mën a dal ci opposition bi Khalifa Sall ci biir yéenekaay bi ne xam la ne Macky Sall moo war a def ci boppam bii ne doole gama amoon ci bokkut ak jamono ji nga xamante ni fi mu nii opposition bi am nañu doole lool ca biir assemblée nationale te nag wax dëgg yàlla loo mënul def ci fukki at mënoo koo def ci ñaari at Cheikh Tidiane Youm di ko dëggal ci biir yéenekaay bi ne fi mu nii kay Macky Sall moom dafa gëlëm xataraayu gi yépp nag li ko waral lenn kese la dèjà gouvernement bu mu teg sax nag dafa yaraax teg ci Macky ci pression dëgg la nekk ndaxte chaque minute biy dem rek jàpp na ne mu ngi ñàkk pouvoir bi bés bi le jour moom ubbi xët bu yaatu ci suuxu moo fi mujjee am moo xam Yewwi Askan Wi ak Benno ñu wax ci batalo Joola li ci des yépp mbiru politique la réew mi quotidien ne démb kay conférence de presse yu bi ba muy jeex tuuti mu ñaaw ndax président Ousmane Sonko daf doon recadrer journaliste yi nga xamante ne nii ñenn ci ñoom dañ leen di yónni ngir ñuy poser yenn question ba tax na moom président Ousmane Sonko di sàkku ci journaliste yi nag ñuy doxee seen sago te leen di xamal nag ne ñun waa Yewwi Askan bi ëbbuñu suñu buntu benn yoon nag moo nar a jur danger dëgg ci kanamu Macky Sall président Macky ba dootul xamati lu muy def yéen bi ne Mimi nag mën na am sens ba képp koo xamante ni d'accord ci doxalinu président Macky rawatina nga nekkoon ci biir APR wala Benno Bokk Yaakaar nga daw ñëw ànd ak moom ci doxalin gii ngir mën a jàkkaarloo président Macky Sall bi yemul ci loolu ndaxte mu ngi xam le ne Mimi ci boppam laa la wax mën na bénéficier sénégalais yu bëri gis nañ ne dañ koo jàmm moom Mimi bu victimisé woo rek nag dana bëri ay sénégalais yoo xamante danañ ànd ak moom l'exclusif yéene def taxaw ci maire bu Malekounda bi nga xamante ni dañ ko mujjee du mooy ci gouvernement bu bees bii président Macky taxawal yéene bi di laajte lan moo tax Maguette Sène nommé ko ministre en bu dee ne liggéey dong moo tax ñu tabbu ministre moom liggéey na moo xam ci seeni gox ci loolu centre sa xol day féex lool ndax ni mu ko liggéeyee te bu dee ay élection rek législative yi ñu génn ak locales yi Maguette Sène dafa duma duma yi métti opposition bi ci goxam moom mi ñu ooyee le Messi des maires wala meilleur maire du Sénégal borom score yu rëy yi fi mu toll ni dañ koo dumóoy ci gouvernement bu bees bi li waral li ni mel nag lépp a ci biir yéenekaay bi la libération yéenekaay moom def révélation bu rëy ci Massamba Sène mi nga xamante ni jàpp nañ ko dugal ci biir kaso bi yéenekaay bi ne waa ji ab influenceur la woon nekk ci TikTok bii di yàq recherche tam ci génn àdduna xale bu jigéen bii di wéyoo ci turu Nafisatu Jeeju moom mi ñu fekk mu daal xaru ci biir néegam yéenekaay bi def na ci révélation bu rëy tañu xamal ni jëkkëram fi mu toll nii mu ngi en garde à vue toll nii nag autopsie bi la xaar ngir ñu mën a ubbi enquête bii daal di jàkkaarloog tamit jëkkëram ji laaj ko lan moo tax Nafisatu Jeeju mii daal di xaru yéenekaay bi ne li ñuy njort daal moo jëkkër ji moo ko teg fitna ba faf nag Nafisatu Jeeju mii bu ndaw boo xama ci ne amul lu dul xam naa ni daal ak fitna guñ la mënti teg xaru moom du solution xaru ah, yàlla may ñu jàmm baax nañu yendoog jàmm ba subaak jàmm incha allah